noonu mu ngi am ci dëkk bi ni dëkk bi day nekk ci jàmm dëkk bi day tegu ci yoon mais bu fekkee à chaque fois dañu bëgg lépp lu xew ñu négocier ko mhm. Sénégal lépp la ñuy négocier surtout lépp lépp lépp la ñuy négocier mhm. Sénégal da ngay war a seeti nit sax ñu ne est xool ko ma booleel pour ñu dem négocier ko du dëgg du yoon mhm. dañu war a defaraat dëkk bi tegaat ko dans les rails parce que bu ñu bëggee àgg fi ñu bëgg àgg wax dëgg yàlla du lii moo ñu fi yóbbu jërëjëf jërëjëf am na solo. point la boo xam ne wax dëgg yàlla buñ koy waxtaanee fii la ñuy jógee le problème de l'éducation doy na waar Sénégal daal euh, war nañu ndëpp ndëppal nañ euh, justice bi. war nañu taxaw nag ndëppal sénégalais ci seen dem boobu. ma ne raay day ànd akub yat nabu qui aime bien châtie bien. may te caresse si tout va bien. tu fais erreur je frappe comme ça. Mhm. comme les choses. <laughs> comme nii ni ma lay torturer nii sa benn loxo bi ma poñe nii téye ko ci suuf. noonu la mais bon ça va venir avec boo ma ñaanul njëkk ah. ñu ni ñu naan euh, dëkk ña ca nekk dañuy niru seen njiit. Mhm. njiit ba bu juboo jubee ñu ànd ak moom jub. bu dëngee ñu ànd ak moom dëgg. yàlla nañu yàlla may ay njiit yu yu jub. nit ñu topp ci ñoom jub te nangoo ku ñuy jubanti surtout ça. Ngo dafa am information boo bëgg a jàllale. balaa may dem ci beneen point bi suñu du dernière minute ñu koy euh, xamal muy euh, Lat Diop bi fi nekkoon ministre des sports. Mm-hmm. nekkoon itam DG bu LONASE euh, tey ci 7 heures du matin la ko téye foofee ci aéroport international Blaise Diagne di AIBD. moom euh, l'ancien directeur général de la LONASE nag présentement mi ngi ci commissariat spécial bu aéroport xam naa bu noppee daañu fa euh, jéem a dem euh, placé nañu ko en garde à vue xamuñu nag lan moo tax ñu def lu nu mel waaye ñu ngi fàttaliku ci tuuma yooyu ñu tegoon ci kaw muy un milliard yi ñu wax ne mi ngi ko doon dénkaane te Ibou Dia mi nga xam ne moo nekkoon Guédiawaye yaa ngi fàttaliku defoon ci ab jàkkaarloog taskatu xibaar yi ñu ngi fàttaliku itam moom Lat Diop moom lay convoqué woon nañ ko fee ca brigade de recherche bu Kër Massar les hommes du commissaire Kandji woowoon nañu ko foofule auditionné ko euh, ñuy fàttaliku ne Ibou Dian mu nekkoon directeur général Guédiawaye football club euh, dafa waxoon ne daal moom Lat Diop mii confie woon nañu ko bëggoon na ko confier benn valise bu détenir woon lu toll ci un milliard de francs CFA ngir mu daal ko koy téyal ñu ngi rappelé wu ci événement yi fi amoon ba sax kenn ku nekkoon ak moom muy bouclier euh, génne woon ay vidéo yoo xam ne dafa ne Lat Diop moom mais moo jële woon xaalis bi ngir daal di koy sécuriser foog naa loolu itam Euh, audition bi tam gendarmerie dañ ko bàyyi ah. mu daal di euh, ñibbi fi nga xam ne nag moom mooy euh, këram waa brigade de recherche tey nag dañu ne daf doon tukki foofee ca aéroport international bu Blaise Diagne dañu ko tegee loxo xam naa dinañu ci dellusiwaat rek ngir yeneen ni leeral. d'accord jërëjëf Ngoné kon keroog dañ ko déglu rek bàyyi ko mu dem. waa mm-hmm. tey ñu bàyyi ba muy tukki ñu jàpp ko. Mm-hmm. <laughs> nag wóoratul nag. wóoratul de. nay fexe xool ndax Léopold fa lañ ko jàppee woon. ah yow aéroport bi moom <laughs> non non bàyyil ma xool ndax bii nekk ci ci ci ci aéro ci. Mm, yoof bi maag yow mënuñoo awee fii ñun fee rek. Nami lan ah, laaj bëgg a laaj naa la kii kii kii laat la. Hmm? kii laat la laat laat. laat Diop waaw laat Diop bu ngi jiwaay. laat kii ah ah mami. lan la merci boo ma laajee ma tontu la sigil. <laughs> mami. Mm. Hmm? yow ice in my ice. kon laat fu mu ne nii da da da doon bëgg dem tukki. waa daf doon génn dëkk bi daf doon tukki. ah avion bi dafa dem bàyyi ko. Hmm? avion bi dem na bàyyi ko. avion bi dem na dem xaw ma de waaye moom. <laughs> ma nga foofu ci digal spécial bu aéroport bu fekkee dama fay dem ci kanam mën nañu ànd. ah ma de de ma affaire laat zéro ko rek garaaw. d'accord. Eh, eh, laat laat moo doon jaay naqari deret fii ci ay jamono sax. ah mami baax merci beaucoup eh, moom naqadi bu dee de ñi mu àndal ñoo naqadi rek ñoom ñooy lay saag moom nag musta saaga moom day génn bu paree def vidéo ne yéen may jàpp mais maa ngi ni sama kër waaye ñi mu àndal. Hmm. dañ lay defal live. mosoo ji saaga xam ndax attan nga ko nag. mosoo ji saaga. Hmm. man aw ma hmm. problème mu live. ngoo jërëjëf ayca ajaratu ma mi sa laaj yi mu ngi bëgg a bëri baax na dégg nga ok reste sage voilà ayca ñu daal di ñëw ci euh, benn point ñuy euh, waxtaanee. di conseil interministériel bi. lañ ko fi jëbal di programme bi nga xamante ne état bu Sénégal euh, mu ngi koy euh, na ma def euh, ci sécuri ci programme national d'accès sécurisé à l'eau et à l'assainissement fari bu nekk lu am am solo. parce que mhm. démb gis ngeen ko kii di le premier ministre Ousmane Sonko àndandoo avec le ministre euh, Cheikh mhm. Tidiane Dièye ak le ministre Moussa ah, Bola na di ministre de collectivités territoriales ak yeneen i ministres yi nga xamante ni ñu nga fa woon. parce que projet accès à dafa di projet boo xamante ni bu am am solo la ndax euh, Sénégal ñaar ñoo fi nekk di ay euh, entreprise yoo xamante ni entreprise étatique la yu ci mel ni SDE SDE nag. maanaam euh, lépp loo xamante ci région yi nga yi ñu nekk muy région urbaine yi ñoom ñoo ñuy fournir ndox bi nga xam ne moo jógee fële absolument moo jógee fële ca lac de lac de Guiers mm-hmm. mais nag yeneen dëkk yi nga xam ne dafa sori Ndakaaru ak li nga xamante ni moo ko wër ñoom OFOR la maanaam office euh, des forages ruraux donc ñoom forage yi ñoo leen di jox ndox muy ay eau yoo xam ne ay eau potable la mm-hmm. malheureusement nag ñun ñëpp saytu nañ ko dernièrement mm-hmm. euh, qualité ndox bi demeetul noonu parce que boo nekkee dans les environs de Dakar dangay ngay saytu ne ndox mi des fois da nga koy xelli sax doo ko mën a naan parce que dafay am mhm. benn guubu ci nekk wala boog dafa am nu muy mel noo xamante ni mhm. tey euh, ñu bëri daal dañu jàpp ni mënoon na mënoon na gën a baax noonu te malheureusement bi ñu defee euh, dernier recensement wu ANSD les résultat détaillés du cinquième recensement général la population et de l'habitat rendu public euh, li nga xamante ni mooy accès à potable bi muy ay maison yu disposé ci robinet yu jógee ci boobale lac lac de Guiers mu ci 69 virgule 9 pour cent en 2023 contre 37 virgule 9 pour cent en 2002 donc y a eu un bond entre 2002 ak fi nga xamante ni mooy 2003 mais teewul ba tey dajagul parce que comme ni nga ko waxee démb ci courant bi sénégalais yëpp war nañ cee gis seen bopp mais ndox mi itamit am na ay sénégalais yoo xamante ñu ngi toog di ko xaar te lac de guerre bi jege na leen te mënuñu ci accéder mm-hmm. loolu mu nekk problème boo xamante ni tey jii la plupart amaana mënuñu ko comprendre parce que lac de guerre dafay nekk ak ñoom jege leen mais ndoxum Lac de Guiers ñoom duñ ci am li nga xamante la ci sénégalais di maanaam ñun Ndakaaru Njaay ak ñi nga ñoo nekk Thiès ñoo koy am donc loolu aussi mu nekk problème boo xamante démb soulevé nañ ko foofu noonu ca conseil ba en zone des ménages disposent d'un robinet dans le logement seulement des ménages mhm. en zone rurale bénéficie de ces services mhm. donc mu nekk itamit ay calcul ay xayma yoo xamante ah, ñu bëri jàpp nañ ni mënoon na gën ministre de tutelle Cheikh Tidiane Dièye ak yeneen ministres yi nga xamante ni ñoo war a liggéey bi si la tëral projet bi nga xamante ni financement bi milliards la objectif bi nag mooy lan mooy fexe ba raccordement yi nga xamante ni ñu ngi koy def ñu am benn maillage national maanaam képp koo xamante ni sénégalais nga ak foo mënti nekk nga mën a jot ci ndox mi nga xamante dañ koy mën a naan parce que tey bëri nay dëkk yoo xam ne sax dañuy jot ci ndoxu robinet bi mais qualité bi ñu koy jotee fi muy servir tey mooy ñi nga xamante ni ñoo nekk Dakar Thiès maanaam ñi nga xam ne jege mhm. nañu mhm. fi nga xam ne mooy zone zone urbain bi mais zone rurale bi ñoom offort la maanaam forage yi ñoo leen di jox ndox mi nga xam ne dañ koy naan te forage boobu noonu day stocké ndox bi bul xam ñaata temps bul xam lan ak lan ak lan moo fay nekk mhm. te loolu yëpp ay variable la yoo xamante ni tey jii Sénégal toll na foo xamante en tout cas war nañu migrer vers ñuy naan moo xamante ni bu sell la bu ci gis te xam nga ni lii doonul loo xamante lu propice à la consommation la te loolu itam mu nekk benn constat boo xamante ni mën naa ne c'est c'est c'est assez généralisé moo waral projet bi muy lu am solo mais itamit projet GTE muy grand transfert d'eau parce que am na ay cours am nay sources yoo xamante ni partagé nañ ko ak ay pays de la sous-région bu ci mel ni Mali ñu ngi dégg démb le premier ministre Ousmane Sonko mu ngi ciy wax mu ngi naan dem na